kon teewaay bi ma fi teew en ma qualité de maire dafa mel ni euh, le maire Matar Ba moo fi toog di nuyu euh, le délégué de quartier nga xam ne tamit c'est un ancien nekk tamit euh, nekkoon ci CDS waaye di nuyu ci moom laa waroon a njëkkee le médecin chef de district ndax ci santé lañ nekk mu nekk ci territoire nekk ci périmètre am mu ñëw vraiment ànd si ak ñun di nuyu euh, le l'infirmier chef de poste la sage-femme ak bépp liggéeykat boo xam ne mu ngi ci poste de santé bi di nuyu euh, suñu xarit suñu wóolere Ibrahima Samb bi nga xam ne moom mooy le secrétaire exécutif bu CDS bi nuyuwaale tous les membres ñi nekk ci CDS bi waaye du nuyu bàjjenu gox yi relais communautaire yi ak les pionniers yi nga xam ne ñoom ñoo fi ñëw indi matériel bi pour accompagner le poste de santé médecin MCD euh, di nuyu délégation bi nga xam ne moo ànd ak man sama xarit suñu wolore mbay ñi bi nga xam ne moom moo nekk le directeur de l'école de de Pouxane ànd si ak ñun nekk wóolare Ibou sàmb Khady Thiam Seck comme ni mu ko waxee bàjjanu gox nekk sama jigéen nekk sama xarit nekk sama loxo ndeyjoor waaye tamit ànd ci ak Sagar Jonn bi nga xam ne moom mooy deuxième vice-présidente chambre de métier bu Fatick waaye tamit nekk euh, la coordinatrice de l'antenne communale électorale bu Fatick ñëw toog nii ak suñu xarit Ibou Dione bi nga xam ne doom la si jogoo Dione bi ak bépp yoo xam ne ànd naag ñun si délégation bi nuyu journalistes yi nga xam ne ñoom ñoo ñëw ànd ak ñun euh, médecin chef district mbégte laa am fekkee lii ndax santé amul prix waaye li ñuy dox tamit li ñu yàkkamti yàkkamti lii moo ko ëpp solo ndax bu fekkente ne ñu ngi dem ci politique daa fekk dañoo wër suñu wërul duñu tal politique kon activité sanitaire boo ko fekkee loo yàkkamti yàkkamti da ngay toog te lu mu doon gën di yàgg may gën a am sawarte toog fekkee ko maa ngi sant ñëpp di nuyu ñëpp di gërëm naan la kontaan naa bokk ci bii ndax man dama juddu la 20 octobre kon mois d' octobre bi ñu koy wax bokk naa ñi ci ko moom dama ci mois d' octobre bi yëpp aw temps fekkee octobre rose bi kon su ma Ibou Samb defalee honneur ma fekkee ci une journée mu tombeel sax clôture Fatick vraiment dama koy sant di ci gërëm di naan am naa ci mbégte euh, ñu jagleel ko nag jigéen ñi waaye tamit jagleel ko euh, dépistage bi di ñaan yàlla lépp li nga xam ne def nañ ko fi yàlla def si barke di woo tamit ñëpp ñu ñëw def dépistage bi xam naa ne suñu paree nii balaa may dugg ci oto bi dinaa woo sama soxna ne ko àndal ak xale yépp ngeen ñëw ngeen def dépistage suñu duggee fii jogoy wax na ko ñun nous sommes un trio kenn ki nga xam ne moo fi ñëwul teewal nañ ko ndax ñun ku fi nekkul rek kenn nit mën na teewal ndax Macky Faye bi nga xamante ne fii moo la dëkk fii émetteur moom waroon na ñëw teew waaye ñun ñoo ko teewal te ay soxnaam ak ñëpp danañ fi ñëw donc ñu ngi wax ne bés bii nga xam ne dafa bokk ci programme bokk ci agenda dépistage bi ci octobre rose bi ci département de Fatick ci Sénégal sax laay wax commune Fatick ñëw di tëjee fii je pense que noonu la suma ma trompé ci fii nii ci émetteur lu am solo la. donc maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp naan nag lii nga xam ne moom lañ accompagné poste de santé bi xeeb nañ ko lool waaye santé amul frontière te au niveau des collectivités territoriales dañoo am lu ñuy wax intercommunalité donc ci biir intercommunalité boobu dinaa fexe boo la commune de Thiaré Ndialgui ak sama xarit la maire Matar Ba ñu am lu ñu lëkkalee ba poste santé yi nekk Thiaré Ndial bi bu fekkee médecin chef loolu c'est possible ñu am partenariat ak le poste de santé de MPR